ndeysaan ndeysaan ndeysaan bébé jën ngeen seen noonu ndeysaan sol na faaru mbaam ma ngay noonu di def ay mise en entraînement moom bébé jën ndeysaan ànd ak waaye gën a subasine xale ya xaloo per kayre ndeysaan bu lamb tolloo fii ndeysaan tey per kayre yàlla ko yàlla fay si lamb ci dooma bi ndeysaan bébé jën a ngi noonu ànd ak jën kayre ndeysaan xolol jën ndeysaan ndeysaan xolol bébé booy polo bi màgg na saan na nga doon def ay mise entraînement ànd ak jën kere ànd ak tubaab la laa xale baa ngi noonu ma ngay def ay mise entraînement loolu daa bokk ci lamb waay laay la laa oh, oh kooku talfa la waay laay la laa ndeysaan ndeysaan lamb gi neex Bébé Diène ngi noonu ngeen di seen nekk ci ay mise entraînement ndeysaan Ousou Paye tey ñëw sol maillot Jaraaf bi tey équipe bu mag bi mais Ousou tey yéen a ngi Bébé Diène waaye sans pression la ñuy demee yàlla moo leen may loolu boo bëree rek ñu daan bu bëreewul la ñuy jaaxle booy yi mais boo bëree rek ñu daan yàlla xam na loolu yéen a ngi yar ndeysaan moo leen tey kooku noonu Bébé Diène ma ngay dem mise entraînement moo Diène Kaïré ndeysaan boppam la ko tuddee yéen moom mu ngi tuddee boppam Bébé Diène ndeysaan ndeysaan ndeysaan da ngay def ay mise entraînement xale bu sumbe booy Kayre xoolal ma nga taxaw il est concentré il est serein waaw il est serein ndeysaan waaw da ngay supay nee na ma xale yi ma